Sénégal dal leen ak jàmm ci xibaar soxal mbiram Ousmane Sonko ak Farba Ngom sa Fuuta ndaxte bu ngeen fàttali ko rek moom Ousmane Sonko sa conférence de leader moom xamle woon na rek ne élection législative yi campagne yi Fuuta lay démarré te bi ngeen xoolee ñoom waa Benno Bokk Yaakaar doon neen xam ne rek ne Fuuta président Macky Sall titre foncier la fa am ndaxte bu ngeen xoolee moom Farba Ngom ngeen rek daal di tontu na ki nga xamante ni moo di njiital Pastef di Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko bis bu tegee tànkam ba Fuuta dana rëccu rek lu mu fa tegee tànkam moom mu Farba Ngom nag di géwal président Macky Sall boobu tëkk na ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko daal di ko xamal rek ne ko bis bi ñëw Fuuta rek nag daal di yëg moom Farba ngoom wala mu xam rek ban jour lay ñëw moom Farba Ngom nag nee na bés bu Ousmane Sonko tegee tànkam ba Fuuta dana rëccu rek lam doon tegee tànkam biiru Fuuta jàngeen jëf